مرشدا كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم عبودة عبد الذات عين سيادة تسود من مكرمها كل سيد وما هو إلا أحمد ومحمد وما هو إلا ما وراء قابلي تيقنت أن المستوى غير قابلي بحرف من مقال قدره من محاول هذا العبد فإن ليس فيه بقية إلا هذا فيه بقية وما هو إلا المستوى للمنادل وإني يا رب رحمانية الله عند من تحب ونار لطريق المجادل وإني روح الفقير سم السوائب وإني روح الفقير سم السوائب الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إله إلا الله الله لا إله إلا الله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله يا مرشدا كسرت الهوى حتى أقر بالكسوم بليت بحب الكتم لكن كتبته وهي جمابيا كتابا الكتم ولم يدريني شيء ولم أكن ضاريا بشيء فلا أدري بأني لا أدري فأبت بأسرار حرام مقالها بسر ولا جهل بزيت ولا أمر لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله عمرك نامت في سكت بيت تنهال من قلبي قبل الكون والكرم نفسك فما دما غير الخمر ويك بشربه وامت غراما بالمدامة فعجبوا ببرهام عبد الذات للبرطيم وجدت حبيبي بعد موت الوائد ثاني هو العاشق المحجوب انا النفس والاباق مهما رايتها تراني بيني كل من عند رفيق الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا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 إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله Assalamualaikum, salaamaaleykum na ñëpp suuf ñu ngi tatagal eh, imam Moustapha du Mawlana Cheikh Ahmad radiyallahu anhu ñu bàyyi kàddu gi muqaddam Cheikh Tidiane Diop Dakar am ay kàddu yu mu war a sànni jëmee ko sëriñ suuf suuf السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله سلم سلم أنا باب الشيخ أنا باب الشيخ أنا باب الشيخ السلام عليكم ورحمة الله خايف سيدي من الأيام

ñu ngi ànd na ci léegi daanaka fanweeri at Moustapha di mu topp suñu digalit ni yow la loolu wóor na Mouhamad Gaye ci loo xamante ni bii mat na ñaar fukki at ñu tegal loola moom lay fett li ci tey yow itam sa daam yal na la yàlla may fan gudd wu am dëgg wér yàlla bu mu ndox amet yàlla bu mu ndog amati keroog bi ndog amee maa ngi woon seeti woo Moustapha daf ma woo ni ma ma waroon yëpp wàcc na ma tey doomu Sidi Diop suñu doom dafa gaañu indil ma ko régler problème sangam ak sangam ak sangam maa ngi Ibrahima Gueye ànd daal di jëndi nekk da baagante ba baal la yàlla dogal mu dogal la yàlla dogal mooy mujj indi jàmm ci yëf yi ak mu set yàlla yàlla yàggal leen fii yàlla bu kër gi amati ndox Moustapha dafa ñëw rek pour yeesal ak jubbal tay ba bàyyi lan la andi ko ñoo ca kër ga gan ñaa nga fa moo fa bàyyi ñëpp ni damay siyaari bu sama xalifa bàyyi kay lu dem nañu ko defee woon daaw yëpp topp ma ma dem sargali sama man ndokkeel ko ci bis bi ak moomeelam loolu moo nu andi mes soo paree rek da nga fay xeeral yow ak ñi nga tooga doon ak ñi nga nekkal yal na nga fi yàgg yow ak say taalibe amiin yaa rabbi yow say taalibe sëñ bi loo ñaan yal na yàlla nangu ko amiin yaa rabbi fanweeri at wala ñaar fukki at du caaxaan damaa woon gone yi bëgg dem bu kàttu ansaaru diin wax ne bi ma ko jëndee léegi vingt huit ans la maam la ma ci wax ak ñoom loolu kon du tey yal na yàlla dimbuñu la yal na yàlla barkeel la Moustapha li mu yónni mooy bu ñu eggee na nga ni Sidi jëbbulu gën jëbbulu woon ci bàyyi jox nañ ko Sidi te dara du ci wàññi ko dara du ci am mu ne ba muy jóge Amérique loolu la bàyyi wax magam loolu na ñëpp wax ñun taalibe yi di topp ñu loolu la ñu wax ñu ngi lay bàyyi xel boo ñu gisee ak boo ñu gisul ñu ngi lay yëg ci suñu ruu ak ci suñu xol yi ndax kat Papa daa boole nañoo ak yow ci dem leen Touba ngeen defee nangam ak nangam ak nangam ak nangam yàgg na laa liggéeyloo daana toog ci prière bi ñu doon nuyu kër ansar bi mooy demagu ci biir te booba yaa ci biir te booba papa ngi yor xilaaf loolu lu ma fekke laay wax nuyu ko ci bunt kër bi ansar bi mu ni muy ci biir dañu moom la ñu ni ci prière bi kon yàlla yàlla ful li ko yor yàlla yàlla mboolem luy seen njaboot bi ne gërëm nañu leen ci turu sëriñ biñ àndal ku la bokk sa rakk ji ñu àndal li ma mooy bu ma nee sëriñ bi mu déranger ndax bi mu toog kon sa turu rakk ji ñu àndal ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla barke ak barkeel barab bii du bu wax ju gudd Medina yi du barab bu ñuy làkkee ak génn xam-xam dëkk bi laaju ko ñun teggi nag yaa dong la ñu fi ñëwee moom la ñuy wax moom la ñuy digal te fa ñu jógee léegi ci conférence ba léegi la xam mu kaamil yi ñu doon jàng ci suba li mu wax mooy dëkk bi laajul lu kon na ngeen ñu ñaanal teg ci mu yaru du dëkk bu ñuy làkkee lenn dégg naa fa gànnaar nag neex naar yi ñu làkk loola moo ko gën a wóor yàlla yàlla fay leen jazakum allahu xayra jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di nangu kàddu yi nga wax yëpp di jógee ndax Mouhamadou Moustapha al imam maa koy gërëm bu baax bari ci démb dama feebar nekk hôpital clinique am fa ñetti fan yaayam suma yaay mu ñëw seet si ma. ma ne ko inna lillahi wa ñaari étage la éeg. mooy ñu ne ma da feebar. may doog di xool ñu ngi ñëw ñu ngi la ma ko fa wax mën naa ko wax ci mbooloo mi dama na ko doomi sëñ daam ñëpp gërëm naa leen damaa la koy joxee surtout ñi jur leen te su ma cee gis kenn ci ñoom mu def ma lu ma naqari mu wax ko. laa xawlan wala fexlan wala niyatan loolu sama bàyyi moo ko def ci man ndax dama xam sama bàyyi man ni ma ko bëggee laa jaaxmatu li ma ko ko bëggee maa ngi wàcc Cheikh Tidiane kenn bëggewoo ndax dama ko gëm te dama koo xam te dama ko fonk te dama jël su ma lépp jox ko ko loolu su may rakk yëpp roy ma ci rawat Cheikh Moustapha roy bu baax a baax a baax a baax kon li ma koy ñaanal mooy yàlla guddal faram yàlla yàggal si magam bi lool suma rakk joo xam ne moom it gërëm naa ko muy Cheikh Ibrahima Ahmed dangaa yàlla na ko yàlla ko samp ko dëgëral ko ci barke Baye Baye asalaamaaleykum gërëm gërëmaane loo xam ne jógewul ci man sa bàyyi la jóge te loolu yàlla na yokk yàlla sax amiin yaa gërëm bu baax a baax ma nekk am ko nekk boo waxee ak boo maa leen gërëm yërmande gi nag dafa jiitu woon démb dafa jiitu tey du tey de du tey de dama xaw xaw ma tey ma gërëm suba ma xarab loolu xaw ma gërëm naa la maa leen ñaanal yàlla te gërëm naa say xadamaat ci taalibe bi ak ci xadara bi yàlla na yàlla dundal nekk sa dundal zahir ak baatin defal ñu jàmm defal ñu ko ñun ñëpp wàcc suñu xol yi dimbale ñu ba ñu bëggante te yàlla tax toppante te yàlla tax wóoluwante te yàlla tax yàlla nañu yàlla dimbale guddal yéen taalibe yi yàlla leen yàlla defal jàmm ba ngeen xam ne yéen a ngi si jàmm yàlla na yàlla may leen am am yu bëri bëri yu rëy ubbil leen ubbite ubbite boo xam ne ubbite comme na ubbi woon Makka kot ko Makka yàlla nañ ko yàlla defal ci alal ak ci muslaay ak ci mucc ak ci jaranga ak ci xéewal ak ci bëgg Mawlana Cheikh yàlla ya nañ ko yàlla defal asalaamaaleykum wa maa bëgg nag yéen ñëpp ngeen déglu Moustapha al imam jàngal ñu rabbal ibaad maa ngi nii ndax ragal rabbal bi moom man dama am ñu digal ba yàgg naa leen ko wax dama ànd ak Cheikh Ahmed mille neuf cent soixante-dix-huit ñu dem leen Cheikhul Xayra ngi taxu ci bés boobu ñu amul ndox sëriñ bi ne ma demal fa teen ba nekkoon nga jàng fa fanweeri rabbal ibaadi ak juróom mu tombé ak rabbal ibaadi di fanweeri béyti ak juróom mu ne ma soo paree tafli ko si suuf indil ma suuf si ma tafli ko si suuf indi ko suuf si mu ne ma delloo ko tuur ko ci teen ma delloo ko tuur ko ci teen ba ne ma dëkk bi doo fi ñàkk ndox bi foofu du ñàkk dara te ku fi ñëw da nga fekk loo xam ne ko kon loolu mooy rabbal ibaadi nañ ko jàng Moustapha nga koy jàng su ko jàng ñun ñëpp nañ ci dugal suñu soxla yi suñu soxla yi nañ ko ci dugal wallahi alazim maa ngi jëm ci xaq Cheikh Ibrahim ne ku ci fas soxla boo ñëwee déwén da nga taxaw fii def lu rëy ne sama soxla faju na te ci rabal ibaadi bañ jàngoon na fajoo kon ñu déglu nañ déglu ànd déglu رب العباد قافل الذنوب وقابل التوب لتقبل توبي بطيب بيتك إلهي تائبا وصالبا وخادعا واهبا من منزل مبارك تنزلني وانفعنا جميع من قصدني أجر فود العلم والأرزاق بزمرتي وهدي غنى الأخلاق نالت اصلاح خاص منحنا فذلك لهم وأكثر مننا زلا لبعد منه الأقدام فلتسمحن لهم فسيك هاموا الليل والليل لوم الحديدا لمن أردت وارفعي الفيوضا نراهم في البس والرخاء وللديانة مع الآلاء يمنا وصحة وبدرا شارحا الأحباب وقع عددا طيبة الحد إلى ظاهري وأخذتني باطني وظاهري كانت هنا ما أخذني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا كان نعم. أسباب كل ضيق وقد من كل خير لا ضر تنافس بالفاني مثل ما يرون فينا الفاني قد كف نعمي ونجنا من غلبي ونقمي المتصدقين والصائمين الدار حاضرين ضعوا النفوس ثم والاموال كالمؤمنين حفظا احوالا حبك يا رب الذات مسلم الاسماء او الكتاب ربي ايا رفيقة من فعلا لقد تصدت مثل النالا وما جئت كل عبد سالا فيما مدى حقق من املا انت الذي ترزق من تشاء فلا تشاء كما تشاء ما شاء وانت اكرم وانت ارحم وانت اجود وانت اعلم أنت الغني القادر المريد ولا يكون غير ما تريد نظر كنتم مع الكافي إذا أنك الحي وجود الكافي تقلب الأعيان بالأعيان فالدرك الأقوام في الأزمان صحبا قدرا وقل لي من كل شيء خير وكن لي يا في بالهادي وصحب الهادي فلتك صحبي كل شر الغادي رب الأمين أعطي بالأمين كل المطالب لكل حين أعطي العبيد بغية لي بالإجابة يحب عجلا لما ما دعوت أراني نلت كل المطالب إني كنت ما قد كنت قائبا من ربي بل كلما أخت شكرته بي نعمه في ظاهر وباطن أسبق لي في الغيب والمواطن زال تكدري وذاك أعظم موهبة وأباها من يكرم لدى حوالي طيبة وتتوزع كل سوء أبدا وسرمدا يا رب سلي العبد مختاري وآلي وصحبي أحياري نعم سبيل المصطفى ونعم أهلي وسيلة الأزار الغماء يا رب بالذات وبالثبات فكن لنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الايمان وتهدنا لعمل الاحسان وانصر لنا وانصر نبينا وفي حقوقنا وهدي دينا وهب لنا ذرية مباركا تكون لله بلا مشاركة وجازي عنا كل من قد احسنا الي من رب الجزاء احسنها الشفيعي يوم المحشر ولا من قد حب بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي الى صراط آله قدر مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولخ والخاتم لما سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي قدر مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ألخ والخاتم لما سبق الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي قدر مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب